te du ko nangu waru ko yàq dan dul nangu sax lu ko yàq nag voilà politique bu leen neexee mën nañoo politiser ah. fu leen neex waaye suñu ëtt kër yeeg suñu boolu añukaay yeeg ñoo ko moomal suñu jàmm gi ñoo ko moomal suñu bopp bu ñu nangu kenn di ko politiser ah, réew réew moo xamante ne que suba boo xëyee yow boo xëyee yaa ngi wër sa damit koo xëy yaa ngi wër sa damit wax naa ko fi démb nee naa leen nam ko nee naa la réew mi doxaan fi jong ma ju rafet takk ko léegi problème la waay dimbali leen ñu waay dimbali leen ñu waay bàyyi leen nag suñu sako waay ñu ñu yeggale suñu sako ah ngi daw lii kenn mosu koo gis nag ñu waxante dëgg nag vraiment ah quand on à Papito Kara quand on pense à tous ces jeunes là mm, yi nga xamante ñu ngi jaar ci géej gi di ci ñàkk mm-hmm. seenu bakken mm-hmm. ah réew mi réew mi metti na réew mi nit ñi seen xol yi jeex na réew mi jaxasoo na réew mi bëccëg mm-hmm. na lii kenn mosu koo gis ah? waay waaye waaye ñun ñun fu ñu bëgg dem nii ñun bëgguñu foofu foofu baaxul. Mm-hmm. ñun dañoo bëgg a teguwaat ci raay yu baax yi gën a defar mu gën a jekk ndax réew mi kat na nabu réew mi daa war a neex. yàlla daf ñoo jagleel ay teraanga yu riis nag. Mm-hmm. jël sunu suuf si defal nu ko suuf soo xamante ne lu waay bay mu naat. Mm-hmm. yaa ngi dégg de. jël naaj wu tàng wii santal mu sampal ñu ko muy jant bi. tubaarkàlla macha allah mu am lu muy def ci sunu yaram. di am lu muy def ci sunu dundinu tous les mhm. jours. nabu ko jël nit ñi def ci ñoom xol boo xamante ne xol bu laab la. Mhm. sénégalais sénégalais danoo baax ba fépp fu ñu mënti dem seen baax la ñuy njëkk xam ci ñoom. Mhm. bu def ñu buñ dee julli ba la ñuy chrétien ñu am foi mooy ñu am gëm-gëm ci yàlla sunu borom. réew mii nag wax dëgg yàlla ñu fay tere nit ñi di xeex ci ay principe xam nga lu tax sunu ay maam danoo xeex ba dee. Cheikh Ahmadou Bamba fi mu jaar yépp moom xaadimu rasul mm-hmm. jàmbaar gu am fitu jaar foofu ci jamono yi ñu tollu jafe na de mm-hmm. ci dootul am mm-hmm. Seydi Hadji ba muy samp zawiyaam gii booba jom fulla ak fayda ak bañ moo waral lii am nii tey ñu ne Seydina Lam Limaamu Laay géej ga randul ku fa mënti dëkk tubaarkàlla ci xam-xamam ak mën-mënam réew mii ba ci taarixu jigéen ñi ay xeexkat lañu te buñ xool ci diine ak lislaam nabu xeex ci principe doomu aadama la war a bokk loo xamante ni lu jëm ci wàllub justice lu jëm ci wàllub yoon lu jëm ci wàllu dundin gi ñu war koo mën a organiser de tele sort que kenn waa loolu nag ci lu buñ ko xamee ci taarixu réew mi mën nañ fee bañ ñoo xam ne ay idée la ñuy xeex ay principe la ñuy xeex gëm-gëm la xeex ak danoo bëgg soppi yëf yi jamono bi mu neex tout est dans l'intérêt mu neex vraiment te le Sénégalais mérite ça mérite ça on ne peut pas dire qu'en 12 ans vous n'avez rien fait vous avez fait beaucoup de travail vraiment évolué dans beaucoup de points mais mhm. léegi nag il faut savoir laisser la place aux autres et créer les conditions bi nga xamante ne mooy tax tànneef bi tànneef bi tànneef bi jaar yoon et mhm. bi neex et qu'on le fasse avec le plus grand plaisir je le répète encore une fois n'oublions jamais na jamais koon masse silencieuse bi toog ne patt jàpp seen ñàmbur waxuñu ba mar doxuñu ba ràpp ndax li nu nekkee rek dañ leen a doy seen carte la ñu yor toog jàpp seen ñàmbur di bu rafet bés bu rafet waaye bës bu rafet boobu nag ña koy organiser pour que lépp ñu mën a jaar ci yoon bañ ne bés ba rafet na ah kaddu ba jib na askan wi tànn nanu ñooñu il faut ñu mën leen a wóolu il faut qu'on puisse leur faire confiance je suis désolée et cette confiance là il faut nga bâtir ko ci ay fondement yu solide te fondement yooyu liggéey nañu ko ba pare mooy ne on a travaillé sur les conditionnements yi nga xamante ne mooy mën a tax ñu ne ah wax dëgg yàlla Sénégal nag ci tund bu mu féete mm-hmm. dëkk yi ko wër yëpp jax na waaye moom ba tey mu ngi taxaw mu ngi taxaw te day dafay bokk ci ñi nga xamante ne euh, mooy mooy mooy référence. ci wàllum euh, démocratie bu nu ko yàq. Mhm. bu ko yàq na bu koor. Mhm. mun noo bëgg tànn suñu président ci jàmm zibile ci jàmm xaar 4 avril. ñu défilé ak jàmm. yaa ngi war a tàmbal sax man gis nga Sénégal ba ci euh, ñi ñuy liggéeyal nii tey on peut donner l'exemple de la Sénélec ak yeneen yi nga xamante ne ñoo fi nekk Orange ak ñoom seen il faut que ñu tàmbal ñu ñuy am le choix. waaw tey eh, il faut que ñun ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi jiitu nekk ci kanam dañoo war a bàyyi ñu am choix wu fal mami mhm. wala fal oustaz mbaa ñu fal nabu waaw xam nga bu ñu c'est pas à de deex dire mami ak nabu tànn leen ci bu leen neex finalement sax mami ngeen di tànn parce que mhm. mami lañ bëgg ngeen tànn loolu loolu loolu bëgguñu ko mhm. tegal leen ñu rek ñu tànn ku ñu neex looluy dëgg te day permettre ñeneen ñi nga xamante ne ñoo fi nekk aussi ñoom ñu sukkandiku ci loolu. loolay dëgg di ñu bàyyi ñuy tànn ci woyofal wala ñu jël compteur simple di fay par ñaari weer. bu dëgg nabu ba nabu bu fi waxati waxi nabu nabu bu fi waxati waxi woyofal. nabu barki démb moo njaay ci bi laa fajar ba bit set laa laa fanaan ba bit set et puis ñoom ñoom man seen système boobu ñu def xawma euh, kii eh, lii kii urgence naka naka nan urgence dimbali ma euh, te loolu code boobu ngay code d'urgence. waaw code d'urgence. waaw loolu dox ak lu muy doxee. na bu ma tëdd bu fi nelaw gënee neex ay waaye man bi laay yéen bi daay wala ay Sénélec bu ma leen baalul àq yéen yi gis ngeen bu ma leen baalul àq bu leen baal bu leen baal yéen Sénélec sonal ngeen ñu nag lakkale ngeen nag na bu tiit tiit gi ndekete bi dañ koo débranché xam nga xale yi tamit duñ dégg bàyyi leen machine bi buy sone ma di ko dégg ñu ne ko teppet débranché na bu daal man defumaa def rek lu dul dem xam nga man damay wër rek di wax léegi na bu wax ba mam naa man na am na lu ma war a def yàlla de wax a wax ba ba ba ba mar na bu koor ñëw sangu tëdd yaakaar ni tey laay nelaw nelaw yu neex. Mhm. ba fajar ma ñëw fajaru courant bi ne dàppet coupé. nabuma tànga tànga tànga tànga tànga tànga <laughs> ba may daw di wut ci kër gi fan moo gën a féex ndekete fépp féppay baax ay waay dimbali leen nu ngir yàlla <laughs> dimbali leen nu mami li ngay lii kenn su ko gis mami li ngay dund nii mbaa xam nga ni Sénégal yu ci bëri moom la ñuy moom la ñuy dund ah, déggoo oustaz xam nga ci am na ñoo xamante ne yow tey dañu débranché woon waaye bu ñu ko branché woon di nga am loo dugal am na koo xam ne bu courant am fayee mën naa yem rek moom journée bu ko dugal parce que amul lu mu ko rechargé. man man na man xam nga ne Sénégal mm. nabu li ñuy dund metti na nag. torop torop nabu li ñuy dund billaahi maintenant nabu lii nabu lii metti na de. Mm-hmm. nan waxante dëgg li metti na nag. Mm-hmm. na bu nii nu mu noo dompat nu mm. mu noo dompat nu ne den na waaye ñu ne na kii cap màtta ñii nag ñii la ñu dund ak ñoom lii metti na kat. l'autre jour dafa am benn euh, bi bi Papito Kara bu mu fi bàyyeeku dafa am benn message boo xamante ne dafa dafa mujj viral ñëpp di ko partage ci ci réseaux sociaux yi. mooy euh, message de voilà une jeunesse perdue ku la gën rafet photo ku la gën mën sourire moo la gën a sonn. def semblant mais wallaahi ku wér jooy. Mhm. nous portons de lourds fardeaux entre le chômage mhm. les échecs déceptions nelaw ba doyal sax doo ko mën ndax yaa ngi xalaat soo yeewoo mauvaise nouvelle yi nga war a jot mhm. lii doy na waar trop qu'Allah fortifie notre mental yal na yàlla dolli sutura amin est-ce que est-ce que tout le l'a partagé nga sentir ne ñëpp dañ ci yëg seen bopp que cette jeunesse au Sénégal wala wala sénégalais yi sax ñëpp dañu nekk di dund métit boo xamante ne xamuñu euh, euh, tàmbali bi xamuñu it tan lay est-ce que xam nga ne Papito parlait de lui. Mm-hmm. c'est au fait message bi du du du moom mais moom beneen message la bindoon. oui mais même bu ko bindee s'il le partage ça veut dire que il a le même ressenti. Mm-hmm. ça veut dire que loolu la yëg. Mm-hmm. te li muy yëg il partage ce ressenti avec beaucoup beaucoup beaucoup de personnes. parce que li choqué nit ñi mooy comment Papito Kara a pu prendre la pirogue. Mm. ban état d'esprit la waroon nekk wax nañ ko fi démb yàlla na ko yàlla yërëm ci xare ko aljana yi gën a kawe di jaay di wujjutu encore une fois ñu jaaree ci di ko jaal famille yam ak njabootam. ak ay mhm. xaritam ak jege ñaaleem ñu jotoon a xam Papito Kara lu mu gàtt gàtt wala lu mu yàgg yàgg. yal yàlla xare ko aljanna ci yéene gi mu amoon ci réew mi yéene gi mu amaloon njabootam ak famille am euh, damay dégg démb Cheikh Ousmane di def benn témoignage bu touchant. Mhm. par rapport ak euh, Papito. conditions yi mu doon conditions yi mu doon dundee. Mhm. te conditions yooyu ñu partagé ko ak ñu bëri xam nga léegi Sénégal lu fi am te loolu Papito wax na ci dëgg mooy le faux semblant. Mhm. xam nga nit ñi lu ñuy mottalikoo te heureusement que ñooy loolu ba tey te loolu yàlla na sax nabu koor muy sax yàlla bu mu yàlla bu mu sàkkeeku nit ñi léegi faux semblant la ñuy dundee dañuy dund ci jamono boo xamante ne maanaam pour nga bokk dafa metti parce que pour nga bokk dafa laaj un bon nombre de choses yoo xamante ne nii tout le monde n'a pas les moyens de se hisser à ce niveau là mais nañu jàpp ne man gëm naa ne réew mi dina neex yi na bu koor waaw man gëm naa loolu que sa prenne le temps que ça doit prendre et je pense que le destin de ce pays est entre les mains du peuple sénégalais qui doit faire un choix pour faire une rupture par rapport à ce qu'on est en train de vivre là. On ne peut pas imputer toute la responsabilité à l'État, comme je l'ai dit, parce que ce serait nihiliste de leur dire que vous n'avez rien fait. Mm-hmm. mais dafa am loo xamante ne ni maanaam li ëpp ci li ñu naqari ci suñu biir xol ñoom bokk nañ ci ñu ko teg. Mm-hmm. te Euh, maa ngi lire ci journaux yëpp ñuy wax ne dañu renforcer gendarmerie et tout ça c'est très bien c'est une très très bonne chose euh, d'ailleurs ñu ngi magnifier liggéey bu am solo bi nga xamante ne ñu ngi koy def waaye gis nga nabu bu état bi amoon volonté dakkal li nga xam ne moom moo nekk ci suñu côte yi mm-hmm. kon situation bi ñuy dund dund ko dund mm-hmm. gis nga bu ñu xëyoon taxaw ci xam nañ fi de gaal di déparé ak fi ñuy fi ñuy commencé yëpp buñ ko façon yéene dakkal kon li papito du ñàkk bakkenam ñeneen ñu dul ñoom duñ ñàkk bakkenam te na bu bàyyil xel itam beneen situation gis nga mhm. ñi nga xamante ne jotoon nañu fàq ba dugg te ñu leen di rapatrier ñooñu bu ñu ñëwaatee xol bu tàng bi ñuy nekkee loolu ku ko dul bàyyi xel defal lu la neex napp mhm. yaakaar gën te metti nga dem ba dugg ñu dugalaat la avion indiwaat la alors que yow dajale nga say économie dajale loo mën ak loo mënul mhm. am sa yéene dem ba amub yaakaar yaakaar boobu yàq yàqeeku carrément mm-hmm. na bu loolu itam on n'a pas cette habitude de travailler sur la psychologie des gens mais c'est hyper important te loolu il faut nit ñi di si bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax a baax mm-hmm. maa ngi dégg Cheikh Ousmane wax de mu ne bi muy dégg autorité espagnole mu ne moom seen ñoom seen problème mooy vague de migrants yàgg naa am mais lan moo tax maanaam sénégalais yee ci ëpp lu xew Sénégal ñoom nañoo laaj moo fi xew mm-hmm. qu'est-ce qui se ba vague d'immigration yi bëree nii. man li may laaj facilité bi ñu am pour ma mami jóge fi jaati géej ba yegg. waa te ñi ñi ñii ñi saytu wala ñiy xool suñu suñu côté yi te duñ leen mën a téye. man hmm. facilité boobu laa bëgg a xam. moom laa la wax ne la pour man volonté bi bu fi nekkoon dëgg-dëgg yëf yi war naa mën a changer bu baax. Hmm. war naa mën a soppeeku bu baax parce que l'État a tous les moyens pour mettre un terme à tout ça. Hmm. donc au-delà de discours. euh, je pense qu'il faut prendre des mesures pour que ça s'arrête parce mm -hmm. qu'on a besoin de nos frères de nos sœurs ici dans ce pays fii lañ leen soxlawee euh, nanu xam ne ñoom ñëpp Euh, seen utilité seen jëriñ mu ngi fii mu ngi fii ci réew mi yëf mën naa soppeeku et j'espère que l'espoir bi nit ñi am duñu ko duñu ko ñàkk mu ko et que on va vraiment pouvoir sortir la tête hors de l'eau dans ce pays et finalement espérer avoir un Sénégal meilleur. effectivement jërëjëf jërëjëf euh, Adjaratou alors sans tarder dañuy euh, daal di dem observer une petite page de pub.